ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك بوكي الجليدي بوكي الإسلام بي télévision Prestige TV bu sunu doom ju baax jooju Alaaji Papa Dumbia mo ñëw tay ci émission bu mag boobu ñuy wax jar jar mag ñi fatali ko mag ni bax ñi ni ko sunu borom tabaraku taala waxe ni wala taxsabanna lazina kutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyahum inna rabbihim yurzaquun sunu borom mo wax ci alquran ni nit nitam nitu yàlla du dé ki fi nu koy defé tay nak kan la. mooy kër Cheikh Sidi Mokhtar Kounta xalifa Baye Sidi Lamine Kounta rahmatullahi alayhi yan yàlla dolli leeram léegi nag sëriñ bi ah dama comme ni ma ko tàmbalee woon rek ah góor gu mag la ñuy waxtaane tey waaw muy nuti yàlla di Cheikh Abdou Khadir Jilaani ah dañu wax ni ah loo mën a xam loo xam-xam demba ma demba gën laa xam boppam ñu bëgg nag tey kunta ndax bu ne ahlu kunti yu seen maam ba ci yéen ci yàlla Muhammad te it nag doon doomu soxna baax na yomb na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 اللهم صل على سيدنا محمد الذي إذا نام بعينه لم ينم بقلبه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ورضي الله عن سيحنا ووسيلتنا إلى ربنا شيخي ومولاي سيح عبد الحاضر جيلاني سلطان الأولياء المحيي الدين الباذ الأذهب ورد الله عن جميع الخلفائه وأهل طريقته كمثل سيح وجدي أبي نعمة الكنتي رضي الله عنه مبكي جتاي بي ماغي لين دي نيو دي نيو الحاج نغاني شي تيواي بي دي نيو دريكتور اك دي نيو كوم نينكو واخاي سانك موي سونو راك جي فيتك ني دي سيرين خليفه اك شيخ موسى جوب دي دومو طالبي nga laaj ñu koo xamante ni bi ñu ko laajee boppam te ni man day baxarun la laa saa ila la mu ni man géej laa goo xamante ni uma tefes kon mënumaa xam sama bopp moom Seydi Abdou Khadre Jeylaani mu ni noonu la yellee ci beneen doomu aadama tamit mënumaa xam dañuy nettali rek comme ni ñuy nettalee sama zaayiru maam Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax sëriñ Mohamed Buuna daf ko wax xad istafat xadaman lil Mustafa xadaman lil jili mursidin xayraanin wa umbiyaanin kon moom ndekete secret maamam buñ denc la mu ni Seydi Abdul Xaajiraan daal boo ko bëggee xam mooy ki nga xamante ni moo nekk sëtu rasulullahi ndax moo wax na ko fa jaddi rasulallahi taaha muhammada ana abdul say ana abdul xaadar sayxu kullu tarixati sëriñ Mohamed ne kooku nga may laaj mooy ki nga xamante ne moo gar daañoo donn woon maamam rasulullahi waaye donn ko rek ci sërif gi waaye daf ko donn ci ci ci ci jël tànkam teg ko ci alxuraan waaye jël tànkam teg ko ci sunna sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax sëriñ Muhammad ni ki ngay may laaj mooy ki nga xamante ne bi maamam rasulullahi sallallahu alayhi wasallam teggee tànkam rek mooy teg tànkam nee na bu beneen yenent doon am nee na waatal ni kenn du kenn du ko doon ku dul sayduna abdul xaadir jelaani nee na nag lenn rek moo leen wuutale mook maamam rasulullahi mooy nubuwa ga si wan nubuwatahu isqat kaana xaatimaha xayrul bariyati taha nurul akwaani kon ñu nekk ci jamono joo xamante tamit tamit jotaayam la ndax bul fàtte ni jamono jii la Seydi Abdul Xaadir Jeylaani gane woon àdduna muy fukki fan ak ñeent di guddi fukki fan ak juróom nga xam ni boo demee ci téere bu ñuy wax mawlidul jiili ñooñu ña euh, euh, seetkat yi borom xam-xam yu mag yooyu ci jamono ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam di jiitu muy gane àdduna ñooñu annoncé woon ni am na benn euh, mujjantalu mujjantalu yonent nangam ak nangam lay mel ba joxe woon ci ay signe bokkoon na ci signe bi ñu joxe woon mooy bu bu gane ab sallallahu alayhi wasallam mooy pour nga xàmmee ni kii mooy mujjantalu yonent mooy du lekk sarax hidaaya lay hidaaya lay jël ñu am ñu ko ci natt woon loola jël ko di ko def joxe sarax pour xam ba xam kii la wala du moom ñu dem biñ ko ko joxee mu gànt ko biñ ko indee ni ko lii hàddiya la mu soog koy nangu. moom Cheikh Abdou Khadre. moom yonent bi salaay salaam maamam. waaw ah, yonent bi. Cheikh Abdou Khadre Jëlaani nag ñi ko ja ñooñu famille boobu ko annoncé woon nga nekk àdduna Seydina Muhammad salaay salaam ñoo annoncé nga nekk àdduna Cheikh Abdou Khadre Jëlaani wan ni dina am ku bokk ci njëreetu yonent bi salaay salaam deretam lay doon moo koy donn waaye kooku bisu weeru koor lay gane àdduna fukki fan ak ñeent ci guddi pour ma wan ni mooy doon yent bi sallallahu alayhi wasallam pour ngeen xàmmee ko mooy su xëyee du dafay ànd ak jaam ñi woorandoo waaw. moom liir moom liir Seydi Abdou Khadr Jilani bi muy nekk ci berceau bi moo ngi woor nga xool woor googu lan la ko defee woon moo tax Serigne Mohamed ni. man saama lillaahi moo ci am solo man saama lillaahi rabbi yowma mawlidihi bi xit taqattaba siinun summa nuunaani mu ni ana kan moo gane àdduna xëy suba woor ñu ne lan moo tax mu woor da koy puukaréew pour wane wilaaya gi ko gi ko giñ ko giñ ko jox wala dafay puukaréew ngir donn gi mu doon maam rasulullahi déedéet mu ni li rabbi borom boromam rek rek pour pour jaamoo ko boromam ngir may yi ko sunu borom may ndax gane àddunaam googu la ca xew Serigne Mohamed bu na ni xanaa yëgal ma wax la benn xew-xew bu ci xew xew-xewam bu ca gën a rëy mooy Seyduna euh, sunu borom subhanahu wa taala xutbaal na junni ak téeméer ci ay nit yàlla pour ñuy pour ñu ñu ñu gane ci àdduna waaye gan teeru ci Seyduna Abdul Xaadir Jeylaani bi xit taxattu ba chiinun su mënu naa kon nga xam ni si kii ñuy bëgg a waxtaanee tolluwaayam sunu borom rek moo ko xam ak sunu ma maamam ak maamam ji nga xamante ni mus musta deñ di toog ak moom ak di ko di ko di ko gunge ci mission bi mu ko jox muy Seydi Abdou Khadre Jilani demee ci téere bu ñuy wax Nuurul Absaar fi manaaxibi ahlil baytil Muxtaar foofu nit yi tur surtout yenent yi bëri na waaye Seydi Abdou Khadre Jilani rek moo ci nekk boo demee moo ñu ciy waxtaanee daf da wax ni la Seydi Abdou Khadre Jilani bi muy nekk tout tànk si zaahir مسنا عندك خدر عليه السلام خدر مو نسيجي خدر خدر موم لا نيوخ نان موي مورد الاولياء جيجو نيت يالا ييب كون سي بيغ ناندال موم لا ينتبي صلى الله عليه وسلم دي جوخ كات موم مو اندون اك موسى موم لا نكو واخ خدر دي نكو خدر دي نكو خدر مسنا كو فك اي تاميت لو جيتو لولو فك xabru maamam rasulullah si jàkka yonent bi sallallahu alayhi wasallam si Abdul Xaadir Jilaani mel ni kuy bëgg a dallu tëdd noonu di sëngam xudaar daal di ñëw daal di koy laal ak tànkam fel ko ni ko yow lu tax doo dem yaa gis nit ñi jàng ci Abdou Razaax nga ñëw tëdd fi te do dem jàng ci Razaax te do Abdou Razaax ci Abdul Xaadir Jilaani ni ko bu am nañu jàng ci Abdou Razaax di jaamu wërsegal kat bi man ci Razaax lay jangé direct muy sunu borom subhanahu wa taala. te boobu moo ngi ngàddaani pour di wuti xam-xam bi xadir ni ko dégg naa sa wax waaye pour ma xam ne yow mii borom mi may nga il faut que ma nga dinaa la natt si Abdou Xajaani ni ko bismillah mu ne ko man day xawma la waaye man mii day njortu naa ne xamuma man xadir si Abdou Xajaani ni ko xam naa la mais dogguma la sëriñ bi xadir moom la wala wala. xadir nit yàlla yi dañuy wax ne bu dee bul wax ne yenent la waxal rek nit ku baax la. waa saalix la Seydi Abdou Xaajilaan loolu la nettali. Cheikh Sidi Moxtar Kunta Seyxul Masaayix yi tamit nettali na ko ne buñ la laajee bul wax ni ni wal la waxal ni nit ku baax la xam nga ko dem ba am garaat di ànd ak Muusa kooku. ba di ko jàngal ñu nii li mu ko doon jàngal moom mooy ilmu tasawuf ci muñ yi mu ko doon muñ loo xaadir rey na ay nit ñoo xamante ni ay xale lañ boo demee ci alxuraan di nga ko ci fekk ñu koy nettali waaye pour mu wax rek ni la masta dañ si ab mu mi ko waxee ni ko man la man la Seydi Abdul Xaadir Jilaani fa antal xadir xadir ni ko ah kon yow yaa ma ndax man xawma la te xam nga ma boo demee si nuru ab sa di nga fekk ànd nañ ñetti at am borom téere yu wax ne ànd nañ ñaar fukki at waaye pour ma wax rek ne Sëriñ Abdul Xaadir bi muy gune tout tànk ci saayir fi mu jëlee ndam li mu am lépp mooy daf ko daf ko daf ko way juróom bu jigéen daf ko dimbale ci ci ndawam mooy Sëriñ Abdul Xaadir bi mu way juróom bu góor bi mu génnee àdduna mu xëy am ay nag yu mu doon sàmmi lu doy waar laa lay wax te Abdou Xaajanaan bi mu génnee nag bi ci ginnaaw àll bi rek nag bi dani ko lii taxul ñu bind la yow si Abdou Xaajanaan ni gersu ko ni ko yow lii taxul ñu bind la li tax ñu bind la mooy dangaa war a defar àdduna comme ni ko sama am doon defaree demal nga jàngi si Abdou Xaajanaan wëlbatiku ñëw ci way juróom bu jigéen ni ko ah wax ko ko way juróom bu jigéen ni ko ah loolu de mooy sa ndénkaane jàng ndax dafa am loo loo ngar daañoo mu wëlbati ko waat laaj ndigalam yaayam yaayam ñaanal ko jox ko jox ko yóbbal tey bu doon ci jamono ji danga naan ay milliards la defal ko ko ci nafa takkal ko ko ci biir yëreem comme ma ja da nga araab yi ni ñu solo dañuy sol jàllaabe jël manta teg ko ci ci biir jàllaabeem la jël xaalis bi nafa yi ma nafa yi mag yooyu jël kiixal ko ko ci biir defal ko ko ci xaalis bi muy dem ci yoon bi yoon bi am na ay agresseur yaayam ni ko nag li ma lay dénk mooy Cheikh Abdou Khadre Jilani wilaya gii nga yor lenn rek moo la ko mën a xañ mooy bul wax mukk lu dul dëgg. bul wax mukk lu dul dëgg lu man lu mën a am nekkoon ci dëgg Cheikh Abdou Khadre di dem bi muy dem mu tëjee ci yoon bi agresseurs yi ku ñii di agressé nit ñi di ray rey ñii di ray di nangu seeni alal moom rek mu taxaw fi mu taxaw bi agresseurs yi agressé ñëpp ba daj. ba ñëw ci moom ni ko loo yor mu ni ko maa ngi ak xaalis agresseur bi daal di reetaan ñuy ñoom wër ko di ko ree ni ko yow ñii ñu leen nangu ñu bañ ñii di bañ ñii di wax ni yoruñu dara bañ fekk ci ñoom alal yow nga ñëw sañee taxaw ni maa ngi hmm. ni leen waaw maa ngi alal ñu ni ko lu tax mu ni leen sama ndénkaane maam rasulullahi bi ko saxaaba yi laajee ni ko ndax jullit dana dana dana jël lu mu momul mu ne ah kay dina ko def ci njuumte bu sàggan jullit bu sàggan ndax julit dana njaaloo mu ne jullit bu sàggan dina ko def ndax jullit dana dana dana dana dana jëw mu ne waaw jullit bu sàggan bu toppul waxi suñu borom de dina ko def ci ci sàggante wala ci tayef ndax jullit dina fen yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ñoké tok jóg ni julit du fen mom sallallahu alayhi wasallam sallam mu ni loolee sababu lama sama lama sama wayjuru wu jigéen sawaat xamni don gi ma don sama mam rasulullah ma moo tax sañu ma wax mukk ni len bu ma waxe tamit war sama mam war sama yaay ndax sama yaay dafa am lu ma denkon ma wax leen deug dëgg googu si Abdul Xaadir Jilaani wax moo tax fukk ak fukki dong ak jurom yoyu sukk ci sase niko kon ñun ndekete biñ nekké ci liñ bañ amé ay fukki at ak juróom ba légui wala lu ko yées ñoo ngi ñëw di dog ak ñaar fukki at ñëw di dogalé di ray ay nit di jël seen alal kon ñun ndekete ñun yow sa yooyu jur bu jigéen ngay bañ a war ak sa maam rasulullahi ñun nag ki ñu sàkk nañuy topp di ko war boobaak léegi muy suñu borom ñoom ñëpp ñu ñëw boof ci kanamam sukk seen tànk daal di daal di daal di tuubal yàlla daal di jébbal seen bopp Seydi Abdou Hadj moo tax Serigne Mohamed bu ne ni ab donga bu jóg bu jóg di jàngi am fukki dongaa ki juróom hmm? mu ni ab donga buy jóg di jàngi hmm. ay atam néew mu am fukki at ak euh, mu dem ci àll bi defar fukki at nit ak juróom te eggagul fi mu jëm jàng ji nee na boobu boobu dongo bu màggee nee na boobu bu boobu boobu dongo bu màggee nee na nee na nee na nee na defar àdduna ci way la ko way fàtte naa waaye waaye li mu ci jublu woon rek mooy defar mu pour wàññ la dafay dafay defar àdduna ah, da ko wolofal Serigne Mohamed Bouna wax na ko nee na Cheikh Abdoul Xaadir Jilaani ne xiif la sax ñetti yoon lay ñetteel ba moo di ragal yàlla waaxidun ma ko may tiitar ak maqaama yu dul dañ du wàññi ko abadan xam nga Cheikh Abdoul Xaadir Jilaani moo taxaw ni man sama maam mooy rasulullah sallallahu ndax moom ci côté way juróom bu góor Xasan la ci côté woy juróom bu jigéen Xuseynu la ñaari doom yi Seydina Ali ñaari doom Seydina Ali ñoom meññ Seydina Abdoul Xaadir kii Moussa la ak Ummul Xayri Ummul Xayri mooy woy juróom bu jigéen mooy Xuseynu Moussa eh, Moussa di waajuram mooy Xasan. moom la ñuy wax Moussa Jankiyu. Moussa Moussa Moussa Moussa moom mooy bàyyi si Abdul Xaadir Jilaani. Ah, kon ñaari ñaari eh, doom yëpp. moo tax sëriñ Maxamed ne la sërif la sax sërif la ñaari yoon la ñetteel ba moo di ragal yàlla waaxee duñ ko ko may pour ma wax ne la rek si Abdul Xaadir Jilaani wax naa ko ni moom day mënoon naa mbubboo eh, ak sërifam ci lu ci lu ci lu bari. waaye da ko da ko da ko da ko da ko bàyyi waaye du dëgg ma ragal yàlla ba am garaatu Abdullahi kon nga xam ni kooku sërif gi du dun du dundeewu ko waaye daf ko doon dundal ndax maam rasulullah ak wuutu gi mu ko fi war a nar a wuutu nga xool ci yoon woowu ak jàng ni mu méttee Seydi Abdou Hadjaraani nee na def naa ci at bi boo demee ci nuru absar nee na Seydi Abdou Hadjaraani def na ci def na ci àll bi ñetti at bi muy jóg di jàng ji nee na man sonn naa sonn goo xamante ni nee na ëmmu woon lu ma daan lekk dama daan wëtti ci xob yi ci xob yi xobi garab yi di ko yëy di mucc seen ndox mi ci Baxdaad nga xool mu ni toog na ci ñetti at yoo xamante ni moom boobu xadir moom ak xadir ñooy ànd bi mu jàng jee ba ne nee na ñuy retourné xadir daan ni ko daal di koy daal di koy woo ni ko si Abdou Xaajalaani bul dugg Baxdaad sa maam rasulullahi nee na bul dugg Baxdaad li may wax boo demee si nuuru ab saat di nga ko fa fekk de téere la mu ni at ñetti at yooyu bii daf koy bii si Abdou Xaajalaani nee na dama koy lekk duma ko naan yaa ngi bii dama koy naan bii ci des ñetteelu at bi lekk ma ko naanu ma ko moom Seydi Abdou Xaadir Jilaani baasul azhab baasul azhab mooy mooy picc mi nga xamante ni mooy buuru picc yépp moom arab yi wax nañ ni picc yépp dañuy dañuy sab waaye du ñu du ñu jëf picc yépp nag picc yépp gis nga leen dañuy sab waaye du ñu jëf mu ni base nag mooy picc mi nga xamante ni day jëf te du wax. am picc la gayndee picc la. di aw fasam ca la daan war di wër ci duniyaa fas woowu du lekk bopp nag la daan reere si Abdou Xajalaani comme ni nit ñi daan waree fas moom gaynde la daan war fu mu daan dem gayndee ko yóbbu gaynde mom da ngay xol pour mo wax ni la li nga wax sank ci tubab sultanul awliya pour mu doon li ko lim ko doné wax xutbu yi ñëw wax waxtu ngon wala waxtu beccëk wala waxtu suba ñëw ci mom fekk ko fi mu tok di jàngale ñu ne ko moy netali mu ni xaalatil awliyaa i an bi azmin antal xutbu ala jami'il anami mu ni leen kuffu su masmau nas khawli xawli innama al xutbu wa ghulami si Abdou Xaajalaani nee mboolem nitu yalla yi dañoo ñëw di ma ndokkel ci naan ma yow yaay xutbu bi muy leen noppi leen nag ma wax leen yéen miinagu leen mbiri yi xutbu si si kër neena na mooy ñi nga xamantani ne bu ñu soxlaa yónneen ñoom la woo di leen yónnee xutbu mooy ñi nga xamantani ne bu ñu soxlaa togg wala soxlaa raxas ndab neena na ñoom lañ koy jox ñu koy raxas mbindaan lay doon sama kër wala booy. xutbu xutbu zaman xutbu zaman ben talib ci Abdou da fay da fay ci xutbu yi la ñëw di bale bi mi bale xad ñëw alayhi salam bi mu ñewé dal koy nuyu ni ko alaykum mu ne ko wa alaykum salaam mu fay mu war ko mu fay ko mu ne ko xana xamoo man la kan mu ne ko xamna la kan yow la khadir mu ne ko waaw man khadir ak ni ma toll nga may fay do wax ak do continuer wax ak man mu ne ko waaw xamna sa may waye sama beut ci ki mu ni jak motax kenn sama beut kooku mooy Seydi Abdul Xaadir Jeylaani Muhyiddin yi xam nga Muhyiddin yi mooy lan ah, Seydi Abdul Xaadir Jeylaani dafa ñëw fekk benn góor ci misaal góor gi màgget ba mënatul dara boppam hmm. boo ko dee xool ma mel na ni ko am ñaar téeméeri at ci kon kooku xam nga mënatul dara boppam fi mu tëdd mënalul dara Seydi Abdul Xaadir Jeylaani jël yat dóor ko mu beesaat taq mel ni mel ni xale bu góor bu toll ci diggu dooleem. moom màgget gi moom màgget gi. si ab mu mu mu gersu ni ko est-ce que xam nga kan la man la kan mu ne ko déedéet mu ne ko man la diine damaa ràppoon oo ma ku ma ku ma ku ma ku ma dundal tey jii yow yaay yi diin moom moo ko tuddee diin mooy yow mii dundal diine ji. tour bu nek cheikh Abdou hadjane amna lu upp ñaar téméré tour ak fukk ak ñett xam nga te arab yi wax nañ ni bari tour limi textalé moy ak jambar njàmbaar bëri tur li muy tegtale ak jambar ndond gi mu doon maam rasulullah sallallahu alayhi wasallam amna amna témér amna lu upp témér tour lu aduna téeméer tur gën a dafa am lu ci xew gane aduna gane adduna Abdou Khadre Jëlaani mom da ci bari ay xilaaf tuuti moo tax bi bi muy wax di talib di talib di talibem di alxaaji Ibrahima dafa wax ni saadatu nasi Abdul Xaadir jilani salili Mawla musa Kaasifur rani nee tehek tehek tehek jamni ñu ne ko kan la muni ni Abdul Xaadir Jeylaani ñu ne ko kooku mooy mu ni doomi Moussa comme ni maamam rasulullahi doon ne woon doon ne nekk woon texe texeeg àdduna ndax moom moo ko fi wutu moo tax mu ni xutbun liy dëggalee li ma wax sànq ni xutbu yi mboolem xutbu yi dañoo ñëw ci moom mu ni xutbun li man xat ataa min qablihi wali man min baadihi lam yakun fi zaaka xawlaani <laughs> mu ni lee mu waxoon nee na si Abdou Xaajalaay mooy xutba bi nga xamante ni ak xutbaam nee na loolu ak jiitu ñi ko jiitu woon raw gi mu leen raw ak ñiy ñëwaat raw gi mu leen raw nee na loolu amul xawlaani amul ñaari wax nee amul wuute nee na loolu mboolem nit yàlla yi jàngkat yi nag xam nañ loolu mboolem nit yàlla amul ku ci bindul tag Seydou Abdou Xaajalaani wan ni ko man ci soron la nek wa ki mo ki mo ñi ñi ñi ci ciy lolu ki mo len weddi. ñi wax ni khadami khadaya ala raqabati kulli waliyillah ñi wax ni ci jamonom la ko yamale won dedet ñu wax jànguñu xamuñu dégguñu si Abdou Xaajalaani ki nak mo dégg si Abdou Xaajalaani kii ni xutbun li man xat ata min qablihi wa li man min baadihi lam yakun fi zaaka xawlaani nee na ñooñu di wax li wax day seeni sëriñ digaluñ leen ko ndax seeni sëriñ dañoo nanguloon Seydi Abdou Khader Jelaani nangul ne ñoom ñoo ngi seen roon imaamu Junayd Saalik ñiy soobu si wàllu wàllu suufiyanke ci moom lañ ko ci moom nañ ko jànge moo boo doon lim tey tarixa bi fukki fukki fukki ñu dox diggante Seydi Abdou Khader Jelaani ak maam Rasulullah ci ñi mu jëlee tarixa bi Junayd moo ngi ci mës nay xutba ba ci yàgg mu daal di sëggal loosam daal ne nangu naa dégg naa nangu naa ñu waaw imaamu Junayd lan lay wax ni mu ne am na benn nitu yàlla buy war a gane ci àdduna bu gane ci àdduna day wax na am na wax ju mu wax lu jiitu muy gane àdduna nee na mboolem xutbu yi raw na leen jël na tànkam tànku wiraayaam nekkul tànk ordinaire yi de tànku wiraayaam la teg seen ndodd raw leen waaw xadami mu ni ndax loolu muni ni loola nangu naa ko du ma fekk sama jamono dina fekk ma génn aduna waaye bu waa waaye bu ñëwee nañ ne ko imaamu junay di day nangu woon na ko te topp na la nga xool Seydi Abdou Xaaj Jelaani mu ni xat zaharat laylatal milaadi lil alami xamsu asiyaa min al azamil burhaani mu ni juróomi yëf yu mag feeñ na ci bis bi Seydi Abdul Xaadir Jilaani di gane àdduna ci guddi googu ay kawteef yu rëy comme ni ko ni ko ni ko maamam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam amee woon bëgg nañ ko xam moom bu baax sunu spectateur yi téléspectateur yi war nañ ko xam waaw mu ni fal awalu anna al faxra qawmi waaliduhu raa nabiyun wa ma xur xarru suxbaani mu ni bi ci njëkk bi ci jiitu nee na way juru Seydi Abdul Xaadir Jelaani nee na gis na sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw ànd ak mbooloo mu mag pour ndokkeel ci umul xayr wan ni ko wajuru mu jigéen wan ni ko ki ma war a donn yow ci yow la nekk ñu ni ndax foofu la yem mu ni ñaareel bi wal awliyaa wal awliyaa wan nabiyu xaailun walida yakunu saanul kasaani bayna al ayaani mu ni mbooleem nit yàlla yi ak yenent yi xam nga bépp nabiyu du mursal waaye bépp mursal nabi yi nga nabi yi yëpp kenn yónniwu leen waaye képp ku ñu yónni rek ci nabi yi nga bokk nee na ñoom ñëpp nag al anbiya ñoom ñëpp nag ñëw nañu ndokkel ci ak wi ak wali yi nga xamante ni xutbaal nañ dina la ko wax ci biir mooy bihi taxattu ba chinun su mënu naa ne nee na ñooñu tamit ànd nañoo anbiyaa yi ñëw ndokkeel ci soxna umul xayri wan ni ko ki war a remplacer Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam war a jëd yeesal sunu diina ji moom nga yor mu ni wa anna kullan min al anbiyaa wa rusuli xat basaruuhu bi nawmin zaahu wasaani dégg nga ko mu ni anbiyaa yi ak rusul yi xam nga sallallahu alayhi wa bi ko way bi mu nekkee ci biir way soxna Amina ñëpp ñëw ñii mursal yeeg anbiyaa yeeg ñëpp ñëw di ko ndokkeel si di ko sangu jamono ki war kimbe jamono yilif ko war a xettali ay xeetam ci ñun ñii sax ci xettali googu muy xettali njabotam ci lañuy dugalé motax Muhammad bu sëy faqan nabiyina fi khalqin wa fi quluhin walam yu daanuuxu fii ilmin wara karamin ñëpp dugg nañ faqan nabiyina mo lam yenent yep mo la raw fi khalqin wa fi quluhin ci bind ak ci jikko walam yu daanuuxu fii ilmin wara karamin neena duñ ko dab mukk mukk mukk ci xam-xam ak ci tedda nga noonu la Seydi Abdou Hadj Jilani mel nag ci biir wali yi waaw burdu mu ne bi an ahlul wilayati bi ajmaihim si waa di izmatin min taxti sinyaani nee na mboolem borom ñi nga xamante ni ay kawe daraja nañ nee na ñoo ñëpp ñëw nañu tamit ndokkeel ci soxna umul xayri du yit si Abdou Xaajilaan di àdduna pour wan ni ko ki ki ki ki ki kii doon sangu jamono ak kii texeel jaam ñi moom nga yor مني وسالس آياتي غرى إما ولد في ليلة المولد من أهل جيلاني مني لج... كم تاني بكو نتي نتلو كم تاني بي مني بن تي غود غسي عبد الحاج يعني وري غني ادنا مني كين جودول ني نكو لوتا مني الا ذكور وهم الف كما ذكروا ومئه كلهم بر للرحمن kii feelu waat Seydou Abdou Serigne Mouhamed Bouna nee na guddi gi si Abdou Hadj Dane waree gane àdduna benn kenn benn jigéen judduwul góor ñi judd ñëpp ay góor nañ pour lan mu ni wa mi atun kulluhum barru barru rahmaani mu ni ñooña def doon nañ lu tolloog ci ay junni illa zukur wa hum alfun junni lañ ci ay góor كما ذكروا كم نين كو تودون ومئاتون اك اك تيمر كلهم لرحم بر بر, بر للرحمن نيوم نيب سونو بوروم داف لينا دفر با بالي سوك لينا اندي بور نيو تيرو سي غانك سيدنا عبد الحر جلاني ورابع لم يمس اليوم من لبن من النهار من ايام رمضان نينا نينتل با موي سيد عبد الخالق جلاني دو غيس موك مو صح لوي نوروك we wenn wenn woy jërëm ba pour pour jéem a nàmp nee na bëccëgu weeru koor bi mujj gi tund woowu yépp nag ci moom nañuy xool ba xam doomu umu xayri ji dog na pour ñu mën a dog buñ toogee tuuti xool asamaan ci lëndëm gis ñu xool xamuñu ban heure jot. Ah. moom nañuy xool bu laalee wen bi rek ñu xam ne heure dog jot na. dafa juddu moom dafa judd xëy suba ànd ak jaam ñu warandoo sëñ Mouhamed bu ne ni ku mën na def jéeli jéeli amul maas. benn soxna jox ko doomam. di ko ko defar di ko jàngaloo xale bi di ko jàng muy jàng bi muy jàng si Abdou Xaajalaane bis ñëw mu wut lu ginaar ginaar daa koy defal lu xale bi nag ci tarbiyaam xale bi dafa jeex tàkk bi muy ñëw ci moom dafa amoon yaram waaye xale bi jeex tàkk ci ci ci yaram ci biñ koy ci tarbiya bi mu bi mu bi mu bi mu jaayam ñëwee fekk si Abdou Xaajalaane tim xéewlu gi di xewlu ba ay yax des si soxna si daan ne ko ah man de bi may indi sama doom ci ak ni mu mel nii wute na bi ma koy indi boobu dafa amoon yaram léegi maa ngi ko fekk mu jeex tàkk yow fekk wax ma dara waaye ma tiim la ngay xewli ci ginaar moom tiim ko mu toog na le di yëy dugub. di waaw di lekk lu lu wow. lu wow mu ni ko waaw kii heure bu ma nee lekk heure bu tolloo ci lekk ginaar dina ko lekk waaye ko ci. ndaw si ni bëreet pour ŋàbb loxo doom ji pour dem si Abdou Xaani ko toogal daal di ne nii ginaar gi xum bi isnillah jógal ginaar gi jóg mu dajalawaat yax yi ni ko nag ko def mu ni ko kii kañ mënu ko mu ni ko waa damaa bëgg bu tolloo ci def nii mën a lekk ginaar lekk ginaar kon kooku mooy Seydi Abdou Xaajalaani Seydi Abdou Xaajalaani nit am na ay am na ay nit ñu nekkoon ci ci àll bi mhm. ci barkeem nañ daan dundee bu heure xéewlu musana jot te bobu mo ngi jog di jangi mo ngi ci àll bi di def di di weur dañ bu heure xewlu bu gaa musaana jot buñ musaana ki rek dañ nan ya si Abdul Xaadir Jilaani xéewlu gi ñew duñ luñ tudd rek lolay ñew ah, mais lolu jógewul ci soxna ci tok ay téré dedet lolu amagul jëlagul soxna limay wax ni bobu mo ngi ci yoon wi di di di di weur di defare ba benn bis moom ma dugg ci àll bi seexam yooyu mu daan def dugg ci àll bi ñëw fekk leen foofu heure xewlu jot mu laaj leen yéen yéen fii ngeen nekk nii bu xew lu jotee noo leen di def ñu ne ko yow toogal rek nga boo demee ci nuuru absaar di nga fekk mu ne ko yow gan nga gan nag du yeewi bay day toog rek ñu toog ba heure waxtu xewlu jot ñu daal di daal di daal di daal di defaat noonu yaa barke Cheikh Abdoul Xaadir Jilaani liñ bëgg comme dañoo bëgg a teral gan xéewal gu xéewal gu mucc ayib ñëw ñu toog ñu xéewlu ba pare moom xam nga jëfandikoom bariwul mu dem toog continuer doxal doxal doxal wàllu yàllam biñ xéewlu ba pare mu muy leen ndax yéen ki ngeen di def tawassul ci moom ndax bu ñu ko gisee di ngeen ko xam mu muy leen ñu wax ñu déedéet ñu ni ko kooku daal duñ ko gis waaye ci barkeem daal nañuy tabarruk muy leen man la Seydi Abdou Hadj ñu ni ko yow nañ doon wër doo ñu fi bàyyi. Seydi Abdou Hadj Della ne 89 ans la am. waaw 1077 ba 1166 la. waxaat ko 1077. ba 1066. ba 1066. 89 ans bind na 313 téere. ñoo ngi ko suul Bagdad. foofu la juddoo. foofu la gane àdduna. ah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. defe naa ni tey émission jaar-jaar yi mag ñi ñu waxtaane ko tey jii tey ci kër Cheikh Sidil Mokhtar Kounta xalifa Baye Sid Lamine mu yebal fa tabaarakallaahu alimul alaama jarbaatam bu baax bi mu ànd ak waa ahlu ñu waxtaan ci góor gu tedd le euh, nitu yàlla kooku màgg kooku mu Cheikh Abdou Khadir Jeylaani defe naa ni tey képp ko doon gëstu baa ngay bëgg a xam kan mooy Cheikh Abdou Khadir Jeylaani boo seetaanee émission jaar-jaar mag ñi fii ci Prestige TV ah di nga am loo dolliku ci euh, nitu yàlla bu màgg boobu le xanaa kañ di dellu rek di santaat yàlla di julli ci yonent bi. di ñaanal nag sunu kilifa yi nga xam ne fa tabarakallah mooy alaji papa Doumbouya ni ko sëriñ bi ñaanal rek ñaanal ko sunu rek sunu doom Mouhamed Lamine Dione mi tey nga xam ne dafa déplacé wu uniquement rek pour émission bi pour won ni directeur daal jox na gëdd sunu émission bi nga xam ni moom la ñu dénk ñu si def béy sunu waar pour rek bégal suñu kilifa ndax nit ku fonkul kilifa ah gis ku fonk kilifa kon ñu ngi ñaan konte di ci sa barke maam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak ci barke ahlu kunti yu ndax wax naa ko ci njëlbéen ga ahlu kunti yu ba ci yonte yàlla Muhammad waaw dañuy lim ba ci yonent bi kon seen barke maam yàlla na topp borom télé bi ak képp koo xam ne rek eh, technicien la preneur de son ak directeur programme yi nga xam ne tey dafa déplacé wu ñëw rek ngir jëmbal sunu émission bi man bëgg naa tey man El Hadj Ngagne Faye xanaa nag ñu dàq xanaa beneen émission jaar-jaaru mag ñi. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك